ci waa fi nga xamante ni mooy euh, caisse sécurité sociale jële ko fan ci bourse ci bourse euh, familiale cent cinquante maanaam euh, mille mille familiale yoo xamante dañu ko war a jël muy quinze millions di cent cinquante daa cent cinquante personnes di un milliard cinq yoo xam ne ñu ko war a jël ci ay yoo xam ne yéen a waxoon man jàpp naa ni seen loi de rectificative bi nga indi méngoo wut ak yoon te itam am lu nekk loo xamante bëgg naa ñu leeral ko ndax da ngeen wax ne am ngeen gàpp parce que

virgule un million mais 4 milliards yooyu noonu jàpp naa ni ay taxes la yoo xamante ne askan wi ñoo ko yor ñoom ñoo ko fay kon bëgg naa nga xam juróom benn weer yi ngeen am 4 milliards wax ngeen ne bu ngeen demee un an da ngeen ne onze milliards onze milliards yooyu état du Sénégal si boppam moo koy jëlee si autoroute bi nga xamante ne maanaam mooy autoroute Ila Touba bi AIBD Thiès ay ak AIBD Mbour mais ñun ñoo ñoo jël suñu xaalis jox ko état Sénégal pour mu lebi xaalis war a koo fay kon jàpp naa taxe yi nga xam ne moom lañ jëlaat pour war koo tegaat supporté ko si askan wi war ngeen a mën a yërëm askan wi ndax askan wi sonn nan yaakaar naa taxe yooyu jaaruwul